war nag boroomu xaalis nekk ci sa ginnaaw maanaam daat lay parrainé jox la li nga xam ne mooy caution bi te loole nag ëllëg mën naa jur li nga xam ne mooy loraange ndax ñi nga xam ne ñu xaalis te seenu askan bëgg leen nit mën naa jógee ci àll ba andi ab xaalisama daal di koy ngemb bu ëllëgee nag bu demee ba yore mairie ba maanaam di dagg suuf sa di ko jox ak yeneen mbir yoo xam ne dina ci gis boppam yéene kaay gi nee na en tout cas mbir la moo xamante ni mu doy waar a doy waar la ba tey ci biir journal bi di réew mi quotidien ci xëlim ak Assane na bëri ay candidat yoo xam ne dinañu leen écarté ci élection yi nga xam ne moom la ñu dëgmal ndax élection la yoo xam ne état bu Sénégal bi nga xam ne moo koy organiser daf koy organiser ba pare bañ a ñàkk élection yooyu moo tax lépp daf koo jël daal di koy calculer yéen a kaay gi di enquête nee na en tout cas li am ba des àll mooy régime bi nguur gi jamono ji nag ñoom ñooy dicté seenub loi yéen a kaay gi di réew mi ko di jee ci xëlim ak Assane Samb nee na wàllum dictature yéen a kaay gi di Dakar Times moom nag daan nay wax ne li nga xam ne mooy démocratie bi maanaam ko bëgg a ko bëgg a jéng te loolee baaxul ci démocratie ci Sénégal ba tey tey ci yéen a kaay gi de la témoin ñu xëy fekk fa opposition bi ñoom nag ñu ñaawlu caution bi nga xam ne yóbbu nañu ko fukk ak juróom ci ay millions ñoom nag jàpp nañ ne loolee daal dafa bëri loola te nag nekkul loo xamante ne lu yella la yéen a kaay gi di Sud Quotidien ca wàllu woo ci la ñëw yéen a gi de l'Observateur élection locale yi nga xam ne moom la ñu dëg ma la nee na capitalu Sénégal mairie bu Ndakaaru coow wala jàppante mënu sa ñàkk diggante Amadou Ba ak ki nga xam ne mooy Abdoulaye Diouf Sarr ñi seen xel màcc jëm ci wàllum càmbar politique ñoo ngi ci biir yéen kaay gi di ko càmbara ak di ko lëñbët yéen a kaay gi wal fajiri xëy ci wàllum investiture yi élection locale yi ci biir benn bokk yaakaar journal bi nee na dina jafe lool lool ci Macky Sall ngir na commune bu nekk maanaam mu tànn foo koo xam ne ñëpp danañu ca ànd pression bu mag jamono ji ci la Macky Sall nekk ma nekk ci yéen kaay gi di Sud Quotidien bàyyi élection locale yi wax ci coronavirus bi nga xam ne jamono ji nemmeeku nañ ne ma ngi wàññeeku bu baax ci réewum Sénégal yéen kaay gi de Le Quotidien ak Vox Populi xëy diñu xibaar naan ñu Hissène Habré mi ñu dugal ko ci kaso bi Hissène Habré jamono ji ma ngi urgence ma ngi réanimation la ko waral daal bokk na ci Hissène dafa coronavirus dafa coronavirus ba pare nag mbir mi jamono ji daal na de ndax Hissène Habré maanaam dafa amee li xam ne mooy diabète ba pare amee hypertension ci ab la ñu ko njëkkoonu yóbbu ba mu yàgg ñu jël ko moom Hissène Habré daal di ko yóbbu ci hôpital public journal bi nee na en tout cas daal wàllu wér gi yaramam goose na ba maara détaale yéen kaay gi di réew ko di jee ñu xëy fekk fa dugal te nag ba léegi nii njaw ma ngay wéy di desu xam bi na léegi nag li ñu koy laaj mooy xaalis boobee ana fan la ko dugal yéene kaay gi de la sa xëy dañu xibaar naan ñu mbay fay mbay fay daal ñëwati na maanaam bi nga xamante ni moom ngeen di dégg ñuy wax ne nag mooy defaraat li nga xam ne mooy sunu stade yi te coow li bëri ci lool ndeka mbay fay moomee maanaam soos yépp ndeka mbay fay dugal na ci loxoom lu jëm nag ci wàllum inondation yi drainage aménagement ci diwaanu Kër Masar ndeke am na ci ay liggéey yoo xamante ni mbay fay moomee maanaam ma nga ne cobbay ci mbir ma journal bi nag nee na Mbaye Faye daal jamono ji maanaam ma ngi ci nag xolub scandale à milliards yéene kaay gi dalee zeko xëy dañu xibaar naa ñu émigration clandestine bi ba léegi ni daal départ bi Sénégal la ndaxte diwaanu Espagne lu toll ci téeméer ak fukk juróom-ñaar ci ay nit ñoo xam ne teg nañu leen loxo ci diwaanu Saint-Louis la ñu déparé woon am na nag ay sénégalais ak ay maliens ak ay gambien yéene kaay gi di réew mi quotidien ñu xëy fekk fa Aliou Sow moom nag ma ngi dànkaafu Macky Sall ci lu jëm ci ñetteelu mandat nee na askanu Sénégal peuple bi ñoom ñoo war a jóg te ñoom ñoom kese rek dong ñoo mën a freiné ki nga xam ne mooy Macky a ndax Macky Sall aw doxiinam ak aw waxinam ko gis war ngaa xam ne Macky Sall ñetteelu mandat la bëgg ci bopp réewum Sénégal te loole nag maanaam waruñu ko koo may damay nettali kàddu yu Aliou Sow la yéen a kaay gi délibération xëy duñu xibaar naan ñu bato Aline Sitoé Diatta jamono ji lu toll ci fukk ak juróom-ñaar ci ay weer yoo xam ne bato bi dafa ne mes na menteñ kenn gisu ko journal bi nee na fukki fan ak juróom ci weeru mars atum 2020 la ñu mujjoon gis bato Aline wa nga xam ne nag ñoo fa